asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bu baax euh, suñu mbokk yi nga xam ni la yàlla dogal ñu bokk métier tasxat xibaar tey nag suñu ndaje bi li ko waral rek mooy ku ne xam na ni jamono yee ci ginnaaw am na suñu mbokk yoo xam ni dañuy yëngu ci wàllu tas xibaar nekk ci organe de presse bu nekk ci réewum Sénégal yàlla dogal nag mu am ay kàddu yoo xam ne dañ ko yëkkati woon am ci kum jëm. ah boobu ba tey nag ñu gis ni bañ leen jàppee mi ngi xaw a dur te métier mi nga xam ne ñun ñëpp dañ cey nekk day métier boo xam ni métier solidarité la waaye métier boo xam ni tamit kenn ku ne rek boo sañoon sa moroom boo amee ci lu mu nekk xool noo ko taxaw loolu moo tax tamit encore une fois ñu ne tey ñun ñi nga xam ni ay acteurs lañ nekk ci wàllu presse nekk fii ci diwaanu Thiès ñu bëgg yëkkati suñu message jëmale ko ci nga xam ne moom mooy Mame Mbaye gannaaw ba ñu ay kàddu ay tooñ yoo xam ne jëm na ci moom loolu moo tax ñun ñëpp tey ñu fas yéene jàkkaarloo du Sénégal waaye jàkkaarloo ak moom ngir gën ko ñaan njëkk mu jàppale ñu ci ñi nga xamante ni yàlla dogal na mu nekk ay njaboot ci presse bi ñu bàyyi leen ñu dellu seen i njaboot ndax ñoom kenn ku ne responsable famille nga da nga am njaboot say waajur yaakaar la bien vrai que yenn say jumte mënul ñàkk mais encore une fois rek la tax ñu daje mooy dañuy ñaan mu ñu leen dañuy ñaan aussi mu tegg loxoom bien vrai que dégg nañ jamono jee passé mu yëkkati ay kàddu moom Mame Mbaye mu ni su moom rek deram méttiwul parce que mën na ko muñ ndax moom moo tànn politique waaye aussi day loo xam ni laal na fameem laal ay njabootam ñoo xam ne seen yoon nekku ci kon tamit ñi nga xam ni ñoo la Mame Mbaye tudd ni ñoom ñoo porté plainte ñoom tamit encore une fois ñun ñi nga xam ni dañu nekk ci tasum xibaar ci diwaanu Thiès ñu ngi ñaanal njekk pour ñu bàyyi leen ñu dellu seen njaboot beneen bi tamit rek muy message boo xam ni ñu ngi koy jëmale ci autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Thiès ku ne xam na ni Thiès nekk na dëkk boo xam ni bari na ay responsable bari na ay kilifa te muy kilifa yoo xam ni tàmm nañ ko médiation loolu moo tax tamit ñu ngi leen di ñaan yooyu kilifa ñu jiima xool ku ci jege Mame Mbaye ak suñu kàddu ngir ñu mën ñu jàppale baalal ñu suñu mbokk yi nga xamante ni que ñu ne ñoom benn lañ parce que ñooy xëyandoo ñooy wàccandoo te yàgg nañu ñoom te muy ay jëmm yoo xam ni aussi mën nañ def te témoignage que yàgg nañ ci métier bien vrai que mais kenn mosu leen dégg ci lenn loo xam ni dañ leen ciy xeep wala lenn loo xam ni day jiima yàq kon boobu erreur aussi bu amee dal seen kaw ñuy ñaan ñu bàyyi leen ñu dellu seen i njaboot beneen bi tamit rek muy message bu ñuy joxe aussi parce que bien vrai que métier presse day métier bu sensible te lu bëree bëri aussi yenn saa mu arrivé ñu nekk ci métier bi li koy waral aussi mooy ñàkk formation li koy waral aussi mooy ñàkk dem di participer ci li nga xam ne moom mooy ndajem journaliste yi wala ndaje boo xam ni day jëm ci wàllu presse kon ñi ngi ñaaxaat tamit ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi yëngu ci wàllu presse nekk ci diwaanu Sénégal te ñu ci ëpp aussi par amul la ci demee affection mais ñu sens génn ci benn école de formation ñu sens aussi am diplôme journalisme kon ñoom tamit ñi ngi leen ñaanaat ñu jéem a fexe aussi ci diwaanu cees ak ci Sénégal que ñuy participer ci formation yi jéem aussi intégré ci école de formation yi en même temps aussi convention yi nga xam am nañ fi ñu jéem a jàngi loolu aussi dina bokk li ñuy dimbali ba ñu mën a xam que diffamation kat boo ko defee li ma la ci fekk li nga xam ne xew na bi mu xewee ñoom tamit njëkk nañ ci lii ndax bi mu xewee rek gis nañ ci ñoom ñu def la nga xam ne moo leen ca war lañ def mooy jéggalu nañ ñoom d'abord parce que nit aussi bu tooñee li jiitu mooy jéggalu boo tooñee da ngay baalu ñoom tamit taxaw nañu jéggalu mais tamit yëkkati message boo xam ne joxe ko pour que ñu nekk ci taskatu xibaar yi gën a bàyyi war xel li nga xam mooy métier journalisme kon donc jàpp nañu aussi ñoom séerul ñu ngi koy def mais nag en tant que tamit comme ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkul Thiès nekk ci yeneen beneen dëkk ñoo mën a taxaw jàppal leen bien vrai que ñoo bokk métier bi kon nag ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci diwaanu Thiès nekk ay acteurs nga xam ne ñoo bokkoon métier bi bokk ci terrain bi war nañ aussi ñaan njekk mais ñoom aussi ñu ngi leen di parce que boobu ba tey gis nañ ni bépp démarche bu ci war ñu ba tey mais li ngay dégg mooy am na ci kilifa yu bari ñu ngi jiima jot téléphone mais mënuñu ko jot ñu ngi ji ma wax ak moom mais mënuñu koo jot ci information mais ñun tamit yooyu yëpp rek du nekk loo xam ne dañuy concerné à 100 pour cent li ñu ñor rek mooy ay ndaw lañu ñun ñoo bokk métier dañ leen di ñaanal que suñu ndaje bii pour leer du ndaje boo xam ni dañuy ñaanal benn or ñaanaluñu organe de presse ñaanaluñu benn boîte de presse parce que ñun boîte bu ne yaa xam na ngay gérer say affaire mais acteurs yi nga xam ne ñoom dañuy yëngu ci tas xadu tas xibaar ñii ay caméraman cadreur nekk ci métier bi ñooñu ñoo daje mbur ñaan ña nga xam ne bokkoon nañ ci ñun bokk suñu organisation comme les acteurs de la presse bi nekk ci diwaanu Thiès pour ñu ñaan ñu daal leen di jéggi donc loolu moo nekkoon ndaje bi xam naa dañuy bàyyi rek suñu sœur Fatima daal koy tënk ci kàllamay France. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Fatima Sow, je suis journaliste et je fais partie donc euh, de la presse euh, thiessoise qui s'est réunie ici aujourd'hui afin de demander euh, pardon à monsieur Mambay Niang tout le monde sait que euh, depuis quelques mois plus d'un mois déjà il y a certains de nos confrères qui sont actuellement en prison dans les liens de la détention parce qu'ils avaient euh, donc euh, sorti des propos euh, à l'encontre donc de monsieur Mambay Niang à monsieur le ministre Mambay Niang aujourd'hui nous tous ici réunis nous vous demandons cordialement sincèrement de bien vouloir pardonner à nos chers confrères. Tout le monde sait, tout le monde est d'accord. Nous tous, autant que nous sommes ici aujourd'hui, savons que vous avez été blessés. Euh, on vous a porté préjudice avec des propos qui n'étaient pas justifiés du tout. Donc, euh, vu ce préjudice que vous avez subi, euh, un préjudice moral, tout autant votre famille aussi a subi le même préjudice. Et pour cela, nous comprenons euh, réellement le motif de votre plainte. Maintenant, euh, tout le monde sait que la perfection n'est pas de ce monde et c'est pour cela que nous tous ici réunis, nous demandons cordialement, solennellement euh, donc le pardon pour nos confrères qui sont en prison, qui ont des familles, qui ont laissé derrière eux des enfants et qui euh, sont des soutiens de famille. Euh, à tous nos confrères et consoeurs journalistes, nous lançons un message pour que ceci soit une leçon euh, pour nous tous. Parce que ce n'est pas normal de véhiculer des informations qui ne sont pas du tout vérifiées, des informations qui ne sont pas du tout justifiées. Et ça amène ce genre de cas Et dans ce genre de cas, il est vraiment très difficile de demander pardon, depuis, surtout si, euh, si, ça, si cela concerne une affaire personnelle. Maintenant, vu le caractère privé de l'affaire, nous savons que M. Mambaignan, lui, a déjà proclamé que s'il ne s'agit que de s'agissait que de lui, il allait déjà retirer sa plainte. Néanmoins, nous lui demandons toujours de, de, de, de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de permettre à ces jeunes-là de retourner dans leur foyer parce qu'ils ont laissé derrière eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, des familles qui sont actuellement dans le désarroi qui ne savent plus où se donner de la tête, qui ont usé de tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition afin de leur faire sortir de prison, mais toujours rien n'est fait. À tout, toutes les associations de la presse qui sont au Sénégal, particulièrement à M. Bamba Kassé, donc de Saint-Pix, nous lançons un appel afin que ce problème soit pris à bras le corps et que donc nos confrères journalistes et techniciens soient délivrés des liens de la détention. ce n'est pas pour rien, nous, le, nous, ne le faisons pour rien, nous n'exigeons pas qu'ils sortent de prison, nous demandons tout simplement pardon euh, pour nos confrères de Allo, euh, Allo, Sénégal qui sont actuellement donc en prison. Et je l'ai tantôt dit, ici nous sommes tous des acteurs médiatiques, que ce soit des techniciens, des journalistes, des présentateurs, des animateurs, des cadreurs, tous autant que nous sommes. tous autant que nous sommes, Monsieur le ministre Mambaignan, nous vous demandons de grâce, de grâce, de libérer, de, de, retirer votre plainte euh, afin que nos frères puissent retourner dans leur foyer.